ñu ngi jox kàdd gi jàmbaari Serigne baara ñu ngi jox kaddu gi ki nga xamante ni si moo àndoon ak baayam ba Cheikh Sidi Makhtar yàlla yàlla dolli yërmande ci moom jàppale ko ba mu yanoo këlub Serigne Bara ba ba bi ko Serigne jox bagaan gi te dara ñaawul muy Serigne Cheikh Bara laat di kenn ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Serigne Cheikh Bara Lat mi nga xam ne këri diine yëpp min nan ab jotaayam wàllu dox mbokk ci l'islam bi moom la ko baayam bu baax ba Cheikh Sidi Makhtar bàyyeeloon Serigne Mountakha ni ko loolu yaa koy wéyal kii nag moo yor kaddu tey Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké kii di jël kaddu moo teewal njabootu guy mbind gépp moom la Serigne Moustapha magi Serigne Bassirou di soppeem di xaritem yabal Serigne Bassirou nee na. moom amul amul kaddu. tey moom amul kaddu. Serigne Cheikh Baara Laat. Serigne Cheikh Baara Laat. moom la jox lépp. moom la jox kaddoom. mooy nee na mooy kilifaam. nee mooy magam. teewal fi Serigne Saliou. teewal fi Serigne Saliou Serigne Xaadim Awa Ba. ndax dañoo am dëj ca Touba. ndax tey dañoo am dëj ca Touba. sunu nijaay. seen nijaay. du ñuy wax Serigne Ousmane Fall. du ñuy wax Serigne Ousmane Fall. bokk waajuru Serigne Saliou Ndeye ak Baye. bokk waajur Serigne Saliou di soxna Fat Fall Ndeye ak baay moo wàcc liggéey. moo wàcc liggéey. moom la ñuy saraxal. moom la ñuy saraxal. moo tax Serigne Saliou. moo tax Serigne Saliou. teewu fi teewu fi tey. xolam waaye xolam. xalaatam xalaatam. yéeneem yéeneem lépp mi ci bis bi. Serigne Cheikh moo tax Serigne Cheikh Baara laat moom la ñuy jox kàddu moom la ñuy jox kàddu gi. Serif ay Aydara di Cheikh Mahfou Serif Ba wulu Cheikh Mat Vadal wulu Cheikh Mahfou wulu Cheikh na Cheikh Saad bu Serigne Bassirou Khadim Awa Ba nee mi ngi koy sant. biig ci guddi la fi ñëw ànd ak rakam Serif Alwali Maana Ndiaye ak Cheikh Biram sek bu Ngoraan ñëw ci bis bi. jërëjëf ñu déglu Serigne Cheikh Baara laat borom jogomaay Cheikh Yacine jërëjëf Doucouré Cheikh na Cheikh Saad bu dellusiwaatoon doo changé toogin jërëjëf Doucouré bisimillahi rahmaani rahim ngi nuyu mbokki jullit yi fi daje yëpp nuyoo bi gën a tedd di jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mahamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér ñu teew fi teewal fi Serigne Moustapha ibnu Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo jiite eh, guy mbind ñuy ndokkeel mboolem ko nga xam ni ñëw nga fi ginnaaw nuyoo boobu may ndokkeel njabootu Serigne Balla Coro ñi nga xam ne ñoom la ñu tudde bis bii te xam ne ñoom waxuma sax Mbàkke mais am na leneen lu ñu seq ak Serigne Baara kon Serigne Bass loolu bu ko feeñalee tey jii am na ñëpp am nañ ci mbégte di nuyu njabootu euh, sëriñ Serigne Cheikh Coro ñoom ñëpp benn lañ koo ci nuyu rek nuyu nga ko ca des ñuy nuyu te leen sant ci taxawaay bu rafet bii itam. ñuy nuyu njabootu sëriñ euh, Sidi Mouhamed mi nga xam ne moo jóge Tiwaawan ànd ak mboolem ñi mu ànd dool teew fii ñëpp ñi nga xam ne ñoo jóge ñaseen ñi nga xam ne ñoo jóge canaba ci kër diine yëpp ndax bis yu mel nii euh, euh, dafa war di am ndax li tax mu war di am mooy mag ñi ñoom ñëpp benn la ñu woon seen bëgg-bëgg benn la woon bëgg-bëgg bi weesu wutoon sàmm séréatul islam ya taxawal ko ba noonu yàlla yi duñ ko ñaaj loolu moo mas a nekk seen taxawaay démb ak bërki démb kon loolee itam nag moo wéy tey jii ndax jitaay bii ku fi ñëw doo wax ni murit la doo wax ni tijaan la doo wax ni laayeen la ñëpp kenn ku nekk sa cër bi nga am sa bi sa maam am ci lislaam am ko ci Sénégal jox nañu la ko ci jitaay bii te bi nga ñëwee itam fekk nga ko fi kon Serigne Bassirou bokk yëpp dañu àndandoo sa ci ci ci ci kàddu Serigne Moustapha nga bokkal sëñ Baara ñëpp sëñ Cheikh Aziz waxoon na ko wa ndax ndaje mii du ma wax ndaje murit du ma wax ndaje tiyaan du ma wax ndaje layen dama naan ndaje lislaam la da fexe ba dajale fi lislaam yëpp tey itam li waral nga man fee dajale nit ñi mooy lu jiitu lii ku le ku le ñun ñu dëkk ak yow xam nañ ne doo noppalu ngir dem ci xew yi loolu nag tey jii nit ñi fay nañ la ko ndax nit ñi moom ku leen téye ñu teye la ku leen téye wutit ñu seeti ku leen téye kon Serigne Bassirou taxawaay bi nga xam ne am nga ko ba mën a taxawal lii ñoo ngi la ci sant bu baax di nuyu bu baax itam eh, sa xarit di sama xarit di Alaaji Abdoulaye jaa ak Moustapha Ndiaye ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Souley Diagne di nuyu Serigne Moustapha Abdoulaye Karam di nuyu mboolem suñu kilifa yi nga xam ne ñëwoon nañ fi ñoom ñëpp eh, bis bii nag dafa am luñ ci war a jànge liñ ci war a jànge mooy contexte bii nu toll nga xam ne gone yi ñoom ñëpp babbeeku nañ mag ñi di jaay seeni kër seen bàyyi jaay seen kër seen ndey jaay seen kër seen jarbaat yi jaay seeni kër di leen ko jox ñuy dem xamuñu ni wa telkal ayaamu nu daawila bayna naas tey yow ëllëg sa morom tey jii Europe aaye waaye déwén Sénégal Afrique mën na aaye te mën nañ dem ba tubaab yi bàbbeeku di jëm si fii xamuñu ni wërsëg nekkul ci tubaab nekkul ci fen nekkul nekkul fen mi ngi ci loxo yàlla suñu borom te ni mu nekk ci loxo yàlla suñu borom itam yàlla kenn ku nekk sa biirum ndey ba nga ci doon jóge wax na ñaata ngay am ñaata ngay noyyi loo fiy lekk diir boo fi am loo fiy naan loolu lépp suñu borom tënk na ko ba pare dem France taxut nga am ko dem Italie taxut nga am ko toog fii taxut nga am ko yàlla suñu borom moo ko joxe te ku mu ko jox foo mën a nekk dina la fekk dem toor responsabilité bi partagé responsabilité bi ñëpp a ci bokk kenn ku nekk am nga ci wàll kenn ku nekk bu jëlee a wàllam yaakaar naa ne loolu mën naa wàññeeku te fi ne ndax wax ma wax ma àll gu réew wax ma say ndaw ma wax la sa ëllëgu réew réew bu demee ba bëgg a ñàkk ndaw dootul am yaakaar tubaab yi ñoom ñëpp fi mu doon li amatuñ ay ndaw ay mag rek la ñu suñ gone yii di dem nii ñu naan téye mënuñu leen a téye tubaab yi bu ñu leen bëggoon a téye benn fan ñu téye leen waaye jeexal nañ takk ay ndaw root suñu ndaw yi ñu dem tabaxalewaat leen seen réew yi loolu la ñu bëgg kon nag loolu ñu ngi wax ñëpp ñu bàyyi ci xel euh, te itam di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ndax sëriñ Sidi Muxtaar daf daan wax ne jàmm ci la lépp nekk Euh, bala ngaa xam jàmm njariñam da nga koo ñàkk saa bu la bi féete ginnaaw nga naan nuyul ma bàyyi diw ak neel bàyyi diw maa ngi bërëb sàngam di nga xam njariñul jàmm mu dellu wax ne lu yàgg wolof ni lu wax lu yàgg dëgg la sëriñ Seydi Moxtaar ni déedéet lu yàgg tey lu baax dëgg la waaye lu bon lu mu yàgg-yàgg du dëgg te sëriñ Bass surne bi am na fukki at ak juróom benn kon yàgg na te dëgg la kon ñëpp xam na ne lu baax la di di di di di nuyu mboolem parents yi nga xam ne dañ leen dee woon bis bi ngir di leen fàttaliku ñooñ ñëpp tañ doon nit ñoo xam ne ñu bokk ci yoon bi la du nuyu mboolem délégation boo xam ne da fee ñëw di dénk nit ñi ñu ñu ñu ñu ñu ñu sax ci jaamu yàlla ñu sax ci liggéey ñu sax ci booloo nekk benn xool critères yi nga xam ne mag ñi yooyu critères yooyu lañ fa tegoon te moo indi lislaam ba mu yegg si ba mu yegg si fii ñuy dénk di ñu jàpp ci lool ñu tuubal yàlla ñu dellu ci suñu borom ñu ragal yàlla ndax ndax fi mu nekk nii yàlla moom du soppiku mukk